salaamaaleykum mbokk téléspectateur Pexxe TV jaajëfal nañ leen bu baax a baax seen eh, vidéo euh, firi gént ak Serigne Cheikh Naa Mbacke Nasrou di leen fàttali benn affaire képp ki nga xamante ne nii euh, bëgg nga ñu la sa gént comme ni nga ko bëggee euh, mun nga ko def si commentaire yi boo ko deful si commentaire yi am na ay numéro yi nga xamante dinañ ko affiché si écran bi woote leen si bu ngeen si wootee di ngeen ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Naa Mbacke Nasrou mu firi leen seen gént wax leen lépp lu ci war a mën a dem ba seen aajo faju Serigne Cheikh Naa Mbacke Nasrou ñu indiwaat tey beneen gént boo xamante nii bon euh, comme ñëpp niñ ko daan déggee rek euh, comme ñëpp niñ ko comprendre tamit maanaam kii dafa gént nekk si ndox man ni ma ko xamee woon mooy maanaam boo nekkee si ndox boo labee si ndox maanaam loolu xéwal la quoi loolu laa daan dégg. Hmm. te ñu bëri tamit loolu la ñuy comprendre donc tey yow lan nga ñu mën a indil firi euh, lan nga ñu mën a firi si loolu. gént géej. ci mooy géej rek. Uh-huh. xam nga géej. gént lab si géej. waaw. géej même bu dul dara nii rek nit ku ne daf ko soxla man nit koo gis rek day bëgg a dem géej féexlu waaw doxantu def yooyu moo tax boo ko géntee noonu rek nga xam ne da gént rek gis géej gis ndox mi noonu gis géej bi noonu loolu lu baax la loolu mooy kii mais détails yi mu ngi ci biir mais comme gént géej noonu rek lu baax la mbégte la njàqare luy dëddu borom la ak yu demee noonu léegi nag bu dee nit ki dafa dafa gént di gis kii mooy vague euh, géej gi mais loolu rek la ci am moom it day tegtale it ni moom fi mu toll nii mu ngi dund ay tiitaange bu dee vague yi rek la gis fi mu muy jug noonu mais moytu defut dara noonu rek la koy géntee noonu day tegtale ne nit ki mu ngi dund ay tiitaangeeg yu demee noonu ci àddunaam bu dee nag dafa gis ne vague yi mi ngi ko mi ngi koy mu ngi koy kii nu mu tuddati mi ngi ñëw ci moom mu koy mu koy mooy toog def yëf loolu it dafay tegtale it noonu lay muccee ci pexe noonam mag pexe yi ñu koy pexeel it suñu borom a ngi ko ci dimbale yaa ngi dégg na ci gën a farlu loolu lay loo loo lay tegtal bu dee da nga gént yi nekk ci biir géej di rëbb di rëbb loolu li muy tegtale it mooy wërsëg wërsëg woo xam ne nit ki. dina ko rëbb mooy wala di napp quoi. waaw di napp daal. Mhm. nekk ci biir géej di nappu jën wala yu demee noonu. dafay tegtale nit ki li muy wut dina ko am ci wàllu wërsëgam am na wërsëg wu koy dikkal daal loolay tegtale. Mhm. bu dee dafa géntu daal di lab lab moom baaxut. lab waaw bu dee dafa da nga gént lab ci biirum ndox moom baaxut. waaw loolu loolu li muy li muy li muy li muy tegtale mooy nit ki li ko wër ci dundam yépp fu mu tëll rek mu ngi dajeeg ay gàllankoor ci àddunaam daal lu muy yóotu day jafe li muy dund toujours mu ngi dund ay tolof tolof ak yu demee noonu loolu mooy bu dee dafa dafa dafa lab ci kawam ndox bu dee nag dafa dafa gis ne euh, day feey day day day feey feey moom waaw mhm. ci kaw ndox mi noonu loolu moom lu baax la mhm. mais feey ci biir ndox bi fee ci kaw ndox mi ak fee ci biir ndox mi te laboo ñaar yëpp yam mhm. yu baax lañ daal mhm. mais li ci bon mooy lab bi ak gis vague yi di dal sa kaw te mënoo cee moytu mënoo cee mucc mhm. ñaar yooyu ci biir gént baaxul mais gis vague yi di ko moytu baax na te parce que loolu muy wane ne rek mooy yow suñ boroom pexe yu bari yu ñu lay pexeel mi ngi la ciy musal ci mbiru àdduna ah. mais dafa lay yónnee benn message pour nga gën a taxawu sa sa sa bopp daal waaw bu dee lab yi da nga gént lab daf lay yónnee benn message pour yow nga gën a taxawu ci sa bopp parce que mënut yónnee kenn direct euh, maanam direct muy wax ak yow. tey doo yónnante boo xam ne loo gént. yow da ngay xam directement lim doon. àggoo mhm. yenn tolluwaay yi. ci mhm. sell wala ci baax. Mhm. kon yow leerlu rek nga mën a def sa gént ñu leeral la ko nim nim nim nim daal di. nekkee nga daal ci taxaw suñu borom daal la ciy defal tawféex. d'accord léegi bu fekkee nit ki dafa gént lab après ñu sauvé ko. waaw waaw maanaam bu dee jotut a dee. mais ci biir lab gi ñu daat koy gis na ni xettale nañ ko daal. loolu mm, day duggaat ci biir mooy day wane ni li ko li li ko li ko li muy dund. li muy dund ci àdduna ci ay tolof tolof mi ngi dund tolof tolof yu metti mhm. mais suñ boroom mi ngi ko ciy xettali. loolu lay wone maanaam mi ngi ko ciy xeetali waaw mais nag da ciy gën a taxaw mhm. pour suñ borom musal ko ci jafe-jafe yooyu ah, parce que gént du mhm. yow boo leerloo sa gént ba pare rek sa soxla faju na mhm. yaa ngi dégg lay tax loolu message booba bu dee njariñ la nga jot ci walla lor mooy li ma li ma li ma koy wax lu bari mooy yaa ciy taxaw yaa gis gis ku la mën a firil mu firil la ko la teg la yoon nga def ko waaw jaajëf Serigne Sall Mouna Mbacke Nasrou ñu ngi a baax ñu ngi kontaan si bu baax a baax di kontaan di toog ak yow si genre jotaay mel nii lan ngay tëjee waaw tëj bi rek comme la ma la daan la ma daan wax rek ñi ko ñi soxla gént bi di laajte bari na lool mhm. lu ci soxla bu ci nit am daal ci gént bu bu bu mënul kii rek na fi wàcc commentaire yi bu ñëwee dinañ jël thème boobu leeral ko. Mhm. niñ koy defee saa su. mën nañ ko def sax thème des fois quoi ñoom seen gént. waaw yu ci bari leeral ko à mm. travers Pexxe TV. waaw ñu suivre ko fii jàppale waale ñu bëri quoi. waaw waaw parce que ñu bëri mun nañ bokkandoo gént. waaw kay waaw kay bee passé yaa ngi bëri na ay façon. Mm. ça dépend ñaari nit mën nañ bokk. gént euh, gént te duñ bokk métier fekk du bokk fii quoi. léegi nag ki ko gént moo ko mën a leerlu. Hmm. bañ leeral nga wax tel sa gént lu mu demee uh-huh. ñu leeraleel la ko noonu parce que lii même lii rek tënk la rek uh-huh. mais uh-huh. leeraloon yëf yi dëgg-dëgg parce que bañ mu jaxasoo d'accord euh, Serigne Cheikhouna Mbacké ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal mbokk internet